إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله للشباب قيمة ومكانة عظيمة في الإسلام كما أن الإسلام أعطاه حقوقا كثيرة مادية ومعنوية أوجب عليه كذلك واجبات وتكاليف عديدة دينية ودنيوية وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل, فق قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فهذا الحديث الشريف يوجه بجلاء بعد مسؤوليات الجسام الذي يجب على الشباب الابتلاء بها في الحياة خصوصا في الوقت الراهن الذي كثرت فيه تحديات والفتن والمحن كثيرة ومتعددة إن الشباب اليوم ملزمون بحسن توظيف الفراغ واستغلاله فيما يفيدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به وقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم شاب نشأ في عبادة ربه عباد الله يعد الترويح في الإسلام أمرا مشروعا بل مطلوبا طالما أنه في إطاره الشرعي السليم وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أقم, أقم صلاة أرحنا بها وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أريه القلوب فإن القلب إذا أكره عميا ay yéen mbokk jullit ñi ngi sant sunu boroom mi ñu war a sax di ko sant di ko ñaan mu julli ci sunu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen dénkit ngeen sax ci ragal yàlla gannaaw loolu ay yéen mbokk jullit ñi xam leen ne lii di ak ndaw nekk na benn place bu mag boo xam ne lislaam da ko koo teg ndax la nga xamee ne moom mooy xiiwal ga yàlla subhanahu wa taala def ci moom islaam màggal ndaw islaam fonk ndaw ndax ndaw mooy pilier bi nga xam ne moo ko mën a taxawal gannaaw ba ka lislaam fonkee jox koy cër noonu it la gàlle ci moom ay àq yu ndaw war a taxawe àq yooyu di yu ñu mën a teg bët ak yoo xam ne mu ne su koo teg bët nii la ñu gisee sunu borom subhanahu wa taala jagleel ndaw ay liggéey ci wàllu diine ji jagleel ndaw ay liggéey ci wàllu adduna loo xamee ne nii kenn mënu ko misaal suñu dégloo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ay yéen nit ñi profité leen ci juróom yi balaa juróom di leen fekk si bi ci jëkk góor góorlu ci sa ndaw balaa ak mage di ñëw ci yow mbokk julit ndaw mi ngi nii yàlla dalay may kàttan goo xam ne tey jii ak a bari loo xam ne sa maam bëggoon na koo def waaye mënatu koo def loolu moo tax ba lenn ci xalaatkati tubaab yi bokk na lu ñuy wax naan ah si je le savais ah si vieillesse pouvait te mooy cay ndaw bu xamoon xéewal gi ko yàlla may ba mën cee profité waaye nag it cay bu amootoon kattan bala mu xam mu mën cee profité loolu muy wane ne mbokk ndawe ñu noonu di benn trésor bu mag boo xam ne ñam nekk seen loxo xamuñu valeur am sunu borom subhanahu wa taala it gis nañu bokk na lu muy maye te su ko neexee mu nangu ko muy ak wér yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sa wér gi góorgóorlul jaamu ci yàlla fàggu ci xamoo kañ la la mane di di bett gannaaw ba bu la yàlla woomalee alal profitol ci alal jooju xamoo kañ la ak woom ak ñàkk dina daf si ci yow loolee da ngay gis ne yépp ña ca gën a am taxawaay moom may ndaw ñi waaye rawatina wax yonent ba lam ne profitol ci sa am jot avant ngay ñàkk jot gis nañ ne ana ñan ñoo ëpp jot ci société bi mooy ndaw yooyu nga xam ne amuñu famille ndaw yooyu nga xam ne lu bari liggéeyuñu ñooñee am nañ jot gu rëy rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne xamoo la kan la ñàkk jot di dab ngal la waaye profitol ci loolu la ca mujjoon mooy dee gi di ñu daq xamu leen kan la dee di dab ngal la waaye profitol su dund bala ngay dee hadis bu tedd bu màgg bi daf ñuy wër responsabilité bi nga xam ne ndaw am na ko ci kaw suuf ndekete yoote ndaw nekkul koo xam ne dafa war a jëfandikoo énergie boobu pour noos heure boo xamee dem na ba màgge nag mu doog a jublu ci jaamu yàlla doog a jublu def lu baax déedéet mbokk loolu njuumte la nekkoon na njuumte na ko jekk waaye gën naa nekk njuumte ci jamono ji ñuy dund jamono ji ñuy dund ci crise mondiale jamono ji ñuy dund ci benn guerre mondiale boo xam ne ñu ngi bëgg a notaat adduna bi sur le plan économique sur le plan culturel lu jëm ci wàllu alal ak i xalaat jamono bi nga xam ne fitna tasaaroo ne ci mbedd yi ci kër yi ci l'école yi jamono ji nga xam ne nii natt yi bari na ca la ndaw tey gën a xam ne am na responsabilité bu mag boo xam ne war naa góorgóorlu taxawoo ca te mooy jot googu ko yàlla may na fexe koo utiliser profitoo ci bam doon ci moom yóbbal bu am solo ñeel ko doon yóbbal bu am solo ñeel dëkk ba nga xam ne fa lay dëkk mbokk julit rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari xéewal ngi nii yu mag doomu aadama yu bëri xamuñu valeuram benn xéewal gi mooy wér beneen bi mooy la nga xam ne mooy am jot bokk na lu arab yi di wax ñu ne wér day benn taat la muy mbaxana mu rafet mu nekk ci bopp ña nga xamee ne dañoo wér kenn xamu ko lu dul aji feebar ya ñu feebar rek ñoo xam valeur wér waaye it am jot tey jii boo xooloon ndaw ya nekk Europe bari na ci ñoo xam ne du nelaw trois heures de temps par jour naka noonu it doomu aadama xamoo fan la la loolu di bette loolu moo tax profitel sa ndaw gi góorgóorlu ci def ci loo xam ne dana la jural ngërëmal yàlla dana la jural la nga xam ne mooy teranga àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu yowm alqiyama amul kenn kuy jóge place bi su penc di dem àjjana wala ngay dem sawara lu dul daañu laaj ñeenti laaj ma yow sa dund ci lan la jeexe woon gannaaw ba ndaw gi nekkoon sa biir dund ci loo rappelé sa ndaw loolu daañ la ko laaj yowm alqiyama sa jeunesse lépp ana ci lan nga ko passé woon gannaaw ba sa alal ji foo ko jële sa alal ji ban ko amee foo ko dugal gannaaw ba it xam-xam bala yàlla wërsëgaloon lan nga ci jëfe loolu mbokk nañ ci góorgóorlu bokk na lay wane ngërëmal yàlla ci ndaw buy jaamu yàlla mooy yonent bi alayhi salaam ne la yowmal qiyaama dana am juróom-ñaari mbooloo yu ñu woo keral leen ci ker arsh ca ñooñee ker arsh moo rekk mooy am yowmal qiyaama ku yàlla keralul ëllëg doo kerlu bokk na ci mbooloo yooyu mooy yépp ndaw yoo xam ne jamono bi ñu nekkee xale lañ jublu jaamu seen borom mooy powum àdduna kër koo ut alal àdduna doxul woon seen digganteeg jaamu seen borom mbooloo yooyu yàlla dañu leen woo këral leen ci kër warash yàlla yàlla boole ñu ca boole ci sunuy ndaw ay yéen mbokk jurit xam leen ne lislaam nekk na diina joo xam ne bañul li ñuy tuddee ay po ci loo xam ne dafay féexal xolu doomu aadama di ko mën a dalal tuuti islaam araamalul léppam bal lislaam la ko wutal ay ponk yum war a yem loolu moo tax ba yonent bi salallahu alayhi wa sallam gis nañu bokk na la gënoon daan dalal xolam heure bu masaan nekk ci ay problème mooy la nga xam ne muy julli nee na lay dalal sama xol muy julli te la tàggataloon sahabatul kiram heure bu fitna masaan dal ci kaw julit ñi day wax arihna biha ya bilal ay bilal dalal ñu ci muy la ñuy tudde loisir luy bànneexay xol la ca gënoon a màgg ñel sahaba yi mooy taxaw ci seen kanamu borom di julli loolu itamit dañuy gis ne gannaaw loolu doomu aadama bi terewuñ ko bépp façon doxin boo xam ne mën na caa dox luy daral xolam di ko féexal ndax këpp rek sax ci jaamu yàlla guddi bëccëg jàng alquran koor amoo benn affaire loolee bu yàggee sa xol day am jeexital ci moom moom la ibnu masud radiallahu anhu doon wax seen xol yi da leen ko dalal ndax xol bu dalul rek bu yàggee day dugg ci ak ngumba aka bari tey benn waay boo xam ne dafay tiju ci am néeg naan day wird ay turu yàlla ñi koy tudde xalu wala leneen day mujj génn rek dof am dépression ñu ne turu yàlla yi moo ko defloo turu yàlla du defloo kenn moo teg boppam lu mu attanul looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu daan tere sax sëlmal ci julli rek jóg dem ci julli ndax bañoon mu bañ loo xam ne ni doomu aadama bi day sonn bépp ndaw bu daan exagéré ci wàllu jaamu yàlla yonent bi da ko daan freiné noonu it la jàngaloon saxaabaam ya jàngaloon njabootam nga ni nit ki des fois mën nga dal féexal sa xol ci loo xam ne lu dagan la xoolal su nee aïcha radiallahu anha nee na man day mas naa ànd ak yonent bi alayhi salaam ci tukki yonent bi bu daan tukki jihaate ko daan tax a tukki nee na ñu dem ba benn place mu ne armée bi dem leen jiituñu armée bi dema dema dem ba gisatuñu leen yonent bi ne ma Aïcha kaañu course ana kuy jëkk yegg ci armée bi nee nañu départ départ départ mu daal di koy raw loolee yonent bi bàyyi ko ba ay at après ba nga xamee ne am naa léegi la nga xam ne moo yaram bu diis ma àndaat ak moom ci beneen tukki mu ne armée bi dem leen armée bi dem ba gisatuñu leen mu ne Aïcha kaañ dem ana kuy jëkk ci armée bi nee na ñu daw yonent bi raw ma ca booba yonent bi presque am na juróom benn fukki at nee na bi ma rawee ma daal di mer mu ne ma xëy bul mer fàttali ko sarawu kërëg ba mooy sarawu tey jii ca loolu mbokk yonent bi alayhi salaam bu koy jàngale mooy dafay wane ne ndekete doomu aadama tant que yaa ngi yem ci loo xam ne lu dagar la l'islam may terewula loo xam ne dana mën a féexal sa xol ba ëllëg booy dugg ci beneen jaamu yàlla jaamu yàlla boobu beesaat yow nga ànd ci ak énergie looloo tax ba yonent bi alayhi salaam da daan ñaax ndawi jurit ñi ñuy def la nga xamee ñu ne ay course la di leen ñaax ñuy course ca fas ya di leen ñaax ñuy course ak gileem ya di leen ñaax ci ñuy concours ana ku dàq sànni fit bal ñëw na fekk ñaari famille ci wa ansaar ñuy concours ku dàq sànni fit yonent ba toog ne sànni leen man famille du laa faral beneen famille ba bant seen loxo mu ne leen lu tax ñu laa yow koy fi nga far buñ ko contre mu ne sànni leen yéen ñëpp laa faral ñoom it ñu daal di continuer sànni mbokk l'islam mi ngi noonu bañul la nga xamee ni nii moom mooy lépp lu ñuy tuddee ay bëre ca bëre yooyu mën nañ caa boole lépp luy arts martiaux na doon taekwondo la na doon karaté la na doon judo la na doon lu mën a doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn mbër bu mag buñ doon wax rukaana bu ubboon lambi waa makka yépp ñëwoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bala maa xam ne yàlla lu yu nii nga ñëw ñu bëre ba nga daan ma yonent bi ne ko bismillah léew teeg moom yéen ba ci kaw dóor ci suuf loolee da ngay gis doonoonu kawteef mooy kon yonent bi alayhi salaam bëre na loolee abu daawud solo na ko waaye kon lislaam bañul bëri ndax mooy bëri bi nga xam ne moom la ñu gis suñ télévision yi yàlla mën na def incha allah ñu ñëw ci suñu ñaareelu xutba islam mi ngi noonu mbokk jurit bañul lépp loo xam ne nii dafay tàggat yaramu doomu aadama bi na doon loolee dafay jëm ci tàggat jëmmam wala tàggat xelam islam bañul tourisme boo xam ne yow la nga cay jublu mooy xool kawtee fi yàlla bi ci àdduna bi ana bari dëkk yoo xam ne amuñu géej yee amuñu ay montagne yee amuñu ay àll xool rabi àll yi islam bañul ay ndaw di jéem a concours ci wàllu ay xel ne dem nañ ko tuddi génie en herbe wala lu mën a doon waaye l'islam it gërëm na loolu ndaw ñi jéem a góorgóorlu ba nañu yàq seen temps ci lu kenn xamul ñu bari lu ñuy lire ay livre bal bari jéem a sax bind ay livre islam bañul doomu aadama bi jéem a xool ay création yoo xam ne da koy def islam bañul doomu aadama bi jéem a góorgóorlu fexe am lépp luy jëriñ ci àdduna nga jëm caa am xam-xam bi charte mooy lépp luy dugg nga xool ne islam araamalu ca dara te it njëriñ na nga ca ñeel ma njëriñ na nga ca ñeel la nga xam ne mooy sama mbokk julit tant que yaa ngi yem ci lii day islam da ngay gis ne gërëm na loolu ngay def bal da la koy bindal ak jaamu yàlla yal na yàlla wërsëgal ñu ñu yem fam ñu yem loo yal na yàlla musal ñu ñuy tabbi ca lam araamal ci ñun wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه عباد الله من شروط الترويح الذي شجع الإسلام عليه أن يكون خاليا من المفاسد والمضار والباطلة والمحرمة وحرم الإسلام العديد من الوسائل الترويح لمخالفتها مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء مثل الغناء والمعازف والنرد والسينما أي مكجريت نيجي سانت سونو بوروم mi ñu teg ci yoon boo xam ne suñ ca jaaree mucc adduna mucc alaxira am teraanga adduna am teraanga alaxira borom boobu ñi ngi koy ñaan mu julli ca sunu sang ba sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñu jàngaloon gën jaa rafet ci teggin gën jaa rafet ci nite ci kaw suuf bokk na la mu wàcce woon ci moom ay yéen nit ñi ndax da ngeen a jàpp dama leen bind rek boyal leen te amu leen lenn loo xam ne da ngeen di dellu si ci man ma laaj leen ko xam leen ne seen borom yàlla day màgg na ci def loolu moom mi nga xam ne mooy borom arash bu màgg ba kon yow doomu aadama sa borom yàlla dalaa bind indi li ci kaw suuf jubluwaay ba mooy lan mooy nga jéem koo jaamu jaamu yàlla nag mooy lan mooy yem fa la yàlla yemloo dem fa la yàlla demloo sunu borom yàlla ne samay rëdd ngi nii képp ku ko jéggi day tooñ nga sa bopp loolu it muy wane na mbokk amul lenn lu yàlla tëral lu dul yàlla subhanahu wa taala nee na yem leen fii mi ngi noonu lépp loo xam ne baax na yàlla da ko wutal fu mu war a yem jamono ji ku demoon bi at màkka bàkkaar nga cay am gannaaw ba jamono ji képp koo xamee ne nii lay lii di waxtu juróom yi ñu yàlla tëral donn woon nga ci beneen waxtu bàkkaar nga cay am naka noonu it pomm ñi yàlla wërsëgal ñu man koo fo noonu it lañ ci yàlla utalal ay limite duna doomu aadama daa war a boy rek looloo tax pomm l'islam fokk day am ay shurut shurut yoo xam ne nii dañuy gis ne jubluwaay ba njëriñ da cay nekk lépp lu amul njëriñ jullit wurul dem di dugg ci loolu ndax sa temps dafa cher bu dee ne tubaab yi ñooy wax naan le temps c'est de l'or bu dee yow julit da nga naan temps jama la kon heure boo xamee ne yaa ngi ci lu amul njëriñ rek yaa ngay perte gannaaw ba dañuy xool baa lor amul ci po bi ngay fo gannaaw ba dañuy xool baa lu xaram amul ci li ñuy fo na ngay xamee ne lislaam araamal na ay po yu baree baree baree bari loo xamee ne ni rawatina mooy li gën a tasaaroo suñ jamonoy tey ca loolee la muy mën a jur merum yàlla subhanahu wa taala bokk na ci loolu la nga xamee ne moom mooy musique bu bon bi tey jii li gën a siiw li ñuy def sur vacances yi mooy li ñuy tuddee Oscar de vacances ana ñaata groupe ci ay xale yoo xam ni musique rek lañ jàpp ne moom lañ war a def seen adduna moom moo nekk ci biir Sénégal bi may mujj dégg la nga xamee ne mooy groupe rappeur yi fi nekk passé woon na 5000 mën na am tey sax passé na 10 000. mbokk musique bu ban boobu nga xam ne tey jii li ma xëyee bokk na lu information yi xëyee mooy xalif généralu mboolem musique kat yi ci àdduna bi faatu na muy Michael Jackson mbokk kan mooy Michael Jackson Michael Jackson boobu nga xam ne demoon na ba daa di xool ne moom kat ab star la bu ndaw yépp jublu kon lu ko neex def der bu ñuul ba ko yàlla mayoon mu xubbi ko weexal ko tàll bakkan ba ko yàlla joxoon muy nègre mu opéré ko def ko bakkanu tubaab et pourtant la ca gën a yéemu maa ngi déglu léegi information de chevé la benn waay di laaj kenn ci musiciens yi burkinabé yi na ko mais bokk na lu jaaxle mooy michael jackson dafa beneen identité africaine ca ndawi afrique yi fépp fu fa dem dëkk yi day bëgg a xar gaa yi loolu lu du yéeme naa waay lan moo ko waral mooy musique bu xaram boobu nga xam ne nii dem nañ ba jàpp ko mu dugg seen xol wala fi ñoo naan bëttub mbëggeel xoolatul melo doonte ne Michael wax na yéen africain yi bëgguma mel na yéen da ngeen a tardé da ngeen a doy waar da man tubaab laa bëgg a nekk tey bu ñëwoon Sénégal Sénégal xar bu demoon Abidjan Abidjan xar fu mu mën a dem mu xar ngir naw ya koy jublu lu tax mooy musique boobu ànd ñu ci seen sago mbokk loolu di musique bokk ñu ni gën a siiw tey sunu ndaw yi li ñuy tuddee musique rap alhamdulilah dañ ko tuddee rap ndax dootuñu ay nit am deet mbokk julit mooy rapport du nit moo tax ñu gën a siiw ci ñoom luñ tuddee seen bopp mooy nit dof fuu malaat néew bi du loolu ngeen di dégg doomu aadama bi nga xam ne nii yàlla da koo teral teg ko ci kaw mindaafoon yépp mu ne man maay nit ku dof kee ñëw man maay fuu malaat kee ñëw ne man maay néew bi loolee da ngay gis ne mbokk sunu ndaw ñi nit ga nekkoon ci ñoom amul dara lu ko gën a mën rocci lu mel ne musique bu bon boobu nga xam ne ngal la waaye góorgóorlu leen seen njaboot ngeen xamal leen ne da leen di tardeel seen adduna waxuma nag seen wàllu diine doo gis mukk tey adduna bi ak défi yi ci nekk doo gis mukk tey adduna bi ak xat-xat yi ci nekk doomu aadama yi jàpp ne musique boobu mooy la ko mën a soqali abadan gannaaw ba yow ndawal julit ñi ngi nekk nii tey ci ay vacances góorgóorlu sa vacance bu ko jeexal ci tapp tapp dem yi bu ko jeexal ci peeru carte bullet ak mariage loolee amul la benn njëriñ sunu borom yàlla mu ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lahwi mu'ridun texe na julit ñi nga xam ni dañuy toroxlu seen julli waaye lépp luy fo dañ koy woon gannaaw góorgóorlu si kemtaleel kattan maytul mele film film yi nga xam ne ñoo ngi koy seetaan tey sunu télévision yi nga xam ne film yooyu yépp amul benn bu ci waa Kajoor defal amul bu ci waa Bawol defal film la yoo xam ne tubaab bu gëmul yàlla gëmul alaaxira moo ko defar ñu ciy empoisonné sunu xale yi guddi ak bëccëg nga la way góor góorlu yow ndawu julit nga fexe moytu loolu moytuloo ko sa rakk yi nga xam ne ñoo jóg xamaguñ ci dara am na benn natt bu rëy rëy rëy boo xam ne yàlla nattoon nañ ñu ko tey muy li ñuy tuddee internet wa ma adraka mal internet internet nga mën a am deux cent francs dem ñu ubbil la lépp lu bon ci àdduna bi ñee nekk fa di seetaan lu doon lu bon ci ay porno ak agression yu kenn xamul nga la wa yow ndawal dilit góorgóorlul waxuñu la ne baaxul à cent pour cent jaasi la de waaye la muy indi ci lor moo ëpp la muy indi ci njëriñ na nga góorgóorlul bu dee mun a caabale dem demal ci oustaz yi la jege ñu wutal la la nga xamee ni nii ay canal yoo mën a jaar ba man faa xam sa diine man faa góorgóorlu defar la nga xam ne mooy sa adduna gannaaw ba mbokk julit xamal ne bànneex dëgg-dëgg nañ ko waxe woon ci xutba bi bànneexu xol yàlla yemale na ko ci li nga xam ne daganal na ko cay bu ngeen ma soon jéem a góorgóorlu jàng seen téere boroom ba xam la nga xamee ne mooy seen téere boroom di jàngi wax yàlla xaaju guddi ngeen jóg taxaw ji naafila loolee kenn xamul bànneex bi nekk ci moom góorgóorlu leen xool leen livre ñu bind ca la nga xamee ne mooy sunu ah njiit yu baax yi fi nekkoon na doon loolee sahabatul kiram la na doon xattaa mag ñi nekkoon ci réew mi la ñu xool seeni jaar-jaar la baaxoon ci ñoom ñu jëm koo roy jëm koo taxawee loolee ku ne ci ñun war naa góorgóorlu jëm cee bàyyi xel kemtaleel kattanam ibadullah mbokk li nga xam ne moom mooy am po mi ngi nii ci islam islam araamalul lépp waaye am na yum ci araamal waaye xatta yi nga xam ne da koo daganal xoolal ma baar lii du la ca dal am na la gën a am solo mooy bépp po boo xam ne yóbbu na la ci nga faat sa julli po moomu wëlbatiku na araam ci yow na doon football la na doon lamb la na doon bépp aar bu mën a doon ci aar yi mbokk julit xatta jihaad fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon jeexate sahaaba yi sunu borom mayu ko mu fab julli dana ko xaajal arme bi genn wàll gi garde genn wàll gi julli kon bépp pa boo xam ne nii faatloo na la julli pama mu xaram na ci yow gannaaw ba la ngay jox pama xool ko nga xëy suba jël ba baa ngoon di jot lépp nga jagleel ko football yow julit bul def loolu lépp nga jagleel ko la nga xam ne entraînement yow julit bul def loolu ndax taa bi nga yor dafa cher bokk na ci it lu am solo mooy bépp po muy jaxase góor ña ak jigéen ña xam leen na loolu lislaam da koo xaraamal tey jii bu doon am nga xol buy dund jamonoy kàngaay jamonoy vacance nga demoon géej ba gis sunu xale yu góor yi sunu xale yu jigéen yi bu sa xol dundee fokk da nga tur ay rangooñ mbokk julit yow xale jigéenu julit bi nettali naa la sànq la nga xamee ni nii moom mooy sunu yaay Aïcha lam doon def ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam islam terewu la nga tàggat sa yaram ci ay xudut mooy ca fam ko yemele waaye cay yéen nit ñi ndax yéen a ngi xool école yi Sénégal yépp fa ñuy defar ñu tuddee EPS su dee mosoo cee xam dara rombal terrain bi sës ci jàkka ji wala nga dem ci lycée bu mën a doon ay jigéen yoo xam ne ñu nga def terminal tol na seen ndey buñ teeloon a dugg néegi sëy tey ñii dégg nañu yaay ñii dégg maam ay góor taxaw tim leen ñu teg ay tappi sol ay culotte di ruloot ci seen kanam di tay ngay seeni tànk di ub di tourner mbokk julit lii képp koo xam ne jàpp nga ne xaraamul wallahi yaay ka nga xamee ni nii xamoo dara sa diine te it amoo benn kersa jar na nga jël sa doom tere ko mu jàngee kool war ngaa góorgóorlu jéem a dem ci médecin mu bindal la sama doom munte def lii bu dara desul lu dul loolu xale bi la bañ a def EPS ñu may ko zéro njàngam yàqu moo gën diinam yàqu moo gën kersam yàqu loolee na ngeen ci bàyyi xel bépp ah bànneexul xol ci fo boo xam ne day indi noonoo ci diggante ay nit di indi gaañeente ci diggante ay nit loolee lislaam gërëmu ko bokk na suñu làmb yi dóor doomu aadama bëñ bi damm bu doonte ne lislaam mi ngi fi koo damm bëñam danga ko jox fukki gileem loolee ji làmb jooju ma doon wax sànq nga xam ne lislaam bañu ko moo karaate ak judo ak yéen a yem bu doonte ne ay góor rek ñoo daje ñaari xale yu góor di bëri ana ku ëpp doole ndax ëllëg gi siwir mën nañoo daje ak suñu noonu bëreeg ñoom wala ci norum karate la ak lu mën a doon loolee mbokk safaanoona ak niñ ko xamee tey ponkol mu toll na bàyyam ngémbu sabar yi wër ko muy pakkar ñee ko fecc bépp doomu aadama bu jàpp ne lii dagan na wallahi day nax boppam pan bokk na it la gën a musiba bu gën a nekk musiba mooy tey bari na ñuy dem lamb la leen fa yóbbu sax du combat bi waaye ambiance lamb ba ci débat déeb yi bu ko defee journaliste yi waaw jël na benn béjjën naawal na benn petax kaza wa kaza mooy njabar boo xam ne nii bu flagrant bu ñu feeñal mooy kii kat mi ngi njabar moromam pour daaneel ko kee it di njabar moromam pour daaneel ko xam leen na mbokk julit rey nit li muy bon bon bon bon bon yonent bi alayhi salaam bi muy nim bakkaar yu bon yi ba mu waxee shirk avant muy wax rey nit njabar la indi kon képp koo xam ne yaa ngi bëre ji di njabar xamal ne bëre booba ngay def islam araamal na ko naka noonu it la amee ci biir football bi mooy bépp équipe boo xam ne yaa ngay njabar sa moromu équipe ngiree ne da nga koo bëgg a gañe xamal ne football boobu araam na ci yow ndax yaa ngi ko lale loo xam ne lu yàlla araamal la loolu moo tax ba mbokk julit nañ góorgóorlu waat jéem a jàngaat suñu diine ndaw ñi jéem a profité waat la nga xamee mooy vacances yi ngal la waay nañ ko jël def ko mu doon njëriñ ñeel leen jéem leen cee jàng benn métier loolee da lay jëriñ rek sa àdduna yow njàngum trop enseignement général bi amul la benn njëriñ trois mois de vacances demal ca tailleur ba jàng demal ca carreleur ba mu jàngal la demal ca mécanicien mu jàngal la ëllëg loo xam ne nii dana la jëriñ yeneen vacances nga changé sax beneen métier mën na am balaa ngaa pare njàngum école métier yu bëri dañ ca xam dara gannaaw loolu góorgóorlul li nga xam ne mooy sa diine xamal ne mooy priorité des priorités jéemal trois mois vacances yi mënoo woon a lire alquran fexeel ba bokk ci ñëkk a mën a lire mënal ngaa lire alquran fexeel ba jéem cee wattu lu bëree bëri defal sa objectif ne balaa vacances yee jeex danaa mokkal suratul baqara wala boog danaa mokkal amma ak suuf loolee mbokk benn yóbbal bu mag la boo xam ne bañ koy wax sunu ndaw ñi mag ñi nga xam ne ñi ngi ci buntu dee moom jaruñoo waxaale nañu xam ne yàlla dañoo bind te dee googu xamuñu kañ lay bett Michael Jackson bii mas naa liir foo xam ne ni dañ ne ci ay capsule oxygène lay fanaan ngir bañ microbe laal ko waaye gars yi borom kun fa yakun ba mu ko soxlaa lan la ko booleel crise cardiaque te yéen ñëpp xam ngeen ne am na ñu koy garde am nay milliards waaye crise cardiaque la ko bette à l'âge de cinquante ans muy won ne xam ngeen yéen ndaw ñi yéen a ko tey kenn ci yéen du dab Michael Jackson ci siiwaay kenn ci yéen du def Michael Jackson ci ay milliards kenn ci yéen du def Michael Jackson ci mbëggeel bu ko ndaw ñu bëgg waaye teewul tey gis ngeen ma nga ca dëgg loolu moo tax ba góorgóorlu leen seen diine mooy seen priorité bu leen ko am njàng yàqal bu leen ko fooy yàqal bu leen ko xew-xewu àdduna yàqal yal na yàlla aar ñu aaral ñu sunu ndaw yal na yàlla musal ñu ci fitna yi àdduna ak fitna yi alaxira yal na yàlla bëggloo ñu lislaam yal na ñu yàlla xiir ci boppam yal na ñu yàlla dundal ci ngërëmam yal na yàlla rey ñu ci ngërëmam allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi laxirati hasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin